leen a wax exactement li nga xamante ni moom mooy euh, les dangers yi nga xamante ni moom moo nekk ci plastique bi ci loolu lañ nekk di leen wax mais ci loolu la ñuy woo ñëpp parce que loolu la état bi woote. bi moom diiru ñeenti at mi ngi fi mi ngi existé mais tey soo gisee tey jii mu am benn sooxe c'est parce que dafa am ñoo xamante ni tey taxawaay biñ ci taxaw seen intérêt bopp rek moom moo leen ci yitteel moo tax bëgguñu plastique jóge ci biir réew mi. mais gis nañ ni tey jii entreprise yu responsable yëpp tey jii ñu ngi wane un bon exemple. Euh, mën nañ ne blocage bi ñaan nañ yàlla ren jii mu dem ak euh, changement surtout nouveau gouvernement bi nga xam ne moom mooy installé wu ni gëm nañ ni boobu tamit ren jii euh, dina fi mën a jóge parce que ñu ngi lancé appel moo xam gouvernement bi le ministre de l' environnement ñoom ñëpp ñu bàyyi xel ci li nga xam ne moom mooy loi bi ci l'homme plastique di ko xeex depuis il des années. dëgg boo delloo ci conséquences yi moom moom wax dëgg fa yàlla bëri na moo tax faral di def recyclage parce que conséquences yi bokk noonu bu ci njëkk moo nekk euh, pneu yi parce que booy xool pneu yi à base de plastique la te ku mer rek wala ku am problème rek ci ngay njëkk dem jëli ji taal léegi taal boobu ñu koy taal booy xool euh, saxaar boobu moom mooy génnee day jur li nga xam ne moom mooy pollution baaxu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo koy nooyu surtout asthmatique yi booy xool Afrique plus particulièrement ici au Sénégal ay asthmatique ñoom doo fi nekk ak ñi nga xam ne aussi dañu am maladie respiration boo xamante ni dañ ko voté woon ci assemblée nationale léegi nag loi boobu noonu mooy loi boo xamante ni muy jëm ci wàllu mbuus ba mbuus muy muy tere muy tere mbuus définitivement au Sénégal loi boobu nag gis nañ ni depuis boobu ba léegi bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko voté ba ba adopté ko ba ba ne dañ koy dañ koy doxal biir Sénégal boobu ba léegi gisaguñu ko ci. Euh, njëriñam. day yàq suuf euh, njur yi tamit mën nañ ko lekk te buñ ko lekkee tamit euh, gis nga mbuus yi fu ñu fu ñuy nekk dafa bëri salté donc dafa am ay bactéries de ce fait njur bu ko lekkee day am bactéries donc mën na ko infecté te njur boobu euh, suba dañ koy dañ koy tabaske wala suba ñu mën nañ ko jël dañuy dañuy jël yàpp bi di ko di ko jaay donc loolu dafa mën na mën na am mu am ay ay gàllankoor ci suñu wér-gu-yaram. donc loolu tamit nañuy xam ne que euh, mbuus bi ñu sànni si mbedd bi mun na retourner contre ñun donc loolu tamit euh, dafa dafa am solo lool euh, dafa mel ni par exemple yenn am na ay jamono même bi même déchets médicaux yi nga xam ne day jóge si hôpital gars yi dañ ko doon gas gas rek suul mais loolu boo ko gasee suul seringue yi ak kii maladie yi fa nekk yooyu ak affaire yooyu loolu tamit day day infecté suuf si donc te su fekkee infecté suuf si gis nga gis nga gis nga teen baa ngi noonu teen boobu wóor na ma nekk amul sax 6 mètres wala 8 mètres de profondeur pompe baa ngi noonu. dinañu aar alam ji waaye li tax kontaanuma vraiment mooy ñul kon ñu ngi fii di ramasser mbalit bi nga xam ni ay multinationales capitalistes ñu jóge Occident ñoom ñoo koy produire ñul ba pare di raxas seen mbalit donc loolu c'est pas normal il faut que loi yi nga xam ni mooy aar alam ji parce que plastique bi bu seeyee muy ci biir géej gi muy ci biir àll bi wala muy ci dëkk yi poson bu bon la buy yàq santé xale yi bu yàq géej gi bu yàq àll bi vraiment war nañ ci taxaw li mu gën a gaaw parce que li muy jur daal du baa